ah kii nag mooy borom bool bi kii mooy say mbay kii mooy toj temps yi dëkk bi mais say mais ana bool bi ah bool bi du yomb de ah allah xam bool bi nit ñi dañ koo seetaan xaaj bi ma ci bëgg yëpp sax xuumale dëgg la di ko tëgg ba mu neex waaw di ko tëgg ba bool bi teppee waaw ci say borom bool bi <laughs> kon ni nga mënee bool noonu nga mënee boobu waaw